de table pour hmm. na la wax na réew mi scandale yi fi am. ci wàllu xaalis koom-koom bi. buñ ko tuddee réew mi toj. Hmm. dinaa la def benn révélation tey. Hmm. il y avait une première proposition de loi. bu ñu jël benn député li mu wax c'est c'est important il y a des députés de l'opposition yoo xamante ne na gars yi def attention si ñoom. Hmm. pouvoir bi di leen di utiliser. ñu nekk ci opposition pour opposition pour régler seeni problème il y avait une proposition de loi bu ñu njëkk a mettre en place pour que benn député de l'opposition porte ko. Hmm. pour ñu amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall. mais boole si tous les délits financiers de 2012 jusqu'à présent. Hmm. loolu Ablaye Wade du ko seetaan. dafa laaj jur doomam. dafa laaj dama lay wax loo xamante ni te li ma la wax je je parle sous le contrôle de Almery Gningue en tant que président de la président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu avorté parce que le député a fait le tour il a avec certains ñu ne ko loolu bis boo ko jéemee di nga gis loo musu gis. moo tax am ni amnistie Karim Wade. ak Khalifa Sall jàllagul parce que dañu ci bëgg a boole tous les délits financiers de 2012 jusqu'à nos jours cette même proposition de loi instant bi ñu ngi koy mettre sur place. pour jéem a xool tous les délits pour ñu def ko. te loolu temps bi du ñu ko may du ñu ko may pour waxtaan si parce que c'est court. vendredi prochain mais vendredi prochain. comme que nit ñi dañuy wër di wax ay tur di wax lii ak lii ak lii dinañu wax lépp ni mu demee. d'accord dama ñoo xamante ne ne dañuy wax ne. Euh, dañu ma proposer man parce que dañu jàpp ni c'est le gouvernement qui propose ci nit ñi ci conseil d'administration non no non assemblée nationale dafa am article buy pro mhm. président commission yi parce que dama leen di wax toujours ni leen lii mooy règlement intérieur u assemblée nationale ku nekk naan nga ko c'est le président de commission qui propose ma siy jaaree sax nag di wax ni man wax dëgg yàlla man poste indiw ma foofu. d'accord poste indiw ma assemblée député moom ma fa indi woon. leneen lu ma fa fekk yàlla la. Mhm. man Moustapha Niass mënuma dàq yàllaa may dàq ndax moom nag quoi qu'on puisse dama la koy wax rek mhm. Moustapha Niass ku ma bëgg la man damay wax ni. parce que député APR yëpp dañ ma bëgg. d'accord parce que nag lii la ma yàlla may lii la ma yàlla bindee. dafa neexul merci honorable neexul toppal fa leen. Euh, Omar Omar Omar bi xoj nañu très rapidement s'il te plaît comme bi daf ñu daf ñu xoj. c'est-à-dire euh, ñu woowaat dëkk bi. Mhm. ko jiite. Ah, mu leen à la raison et à la sérénité. Euh, parce que réew mi soxlawuñu fitna. ndax bi ngay jël say mesure ak say dogal. da toog rek waxtaanee woo ko diisoo woo ko da ngaa xëy na ko ñu pëy génneel ñu ko mu nekk la surprise du chef je crois que tey en tant que acteur communautaire pour man li gënoon mooy ñu stratégie communautaire mm-hmm. wàcc ci suuf jëlee ko ci suuf impliqué ñëpp impliqué ndaw ñi impliqué euh, kilifa diine yi impliqué ñëpp ba nga xamante ne ñu xam ni mbas mi c'est présent ñëpp joxante loxo liggéey ci loolu. waaye da ngaa tëju sa biro génneel ñu ay alkaati génneel ñu ay policier ne ñu dem leen tëddi c'est-à-dire man nit mënu ma démontrer. nit mënu ko muusa ko muccaat ba gëmloo ma nii. virus bi moom bu guddee lay fonctionner nekk gardien bëccëg bi njaga njaay yi vidéo yi bu ñu ko amee nañ ma ko dugaleel image du jour mm. nit ñi di buuxante ci biir njaga yi nit ñi di dajaloo ci marché yi mm-hmm. virus bi di gën a ngundaandaat li nga xam ne nag mooy dëgg euh, c'est l'occasion de le féliciter Pape Makhtar tu as raison mosuñu am assemblée nationale dañ doon am ay députés yu exceptionnels bariwul d'accord mais assemblée nationale moom wax fa dëgg sa yàlla. Mhm. waxuma la nañ ko tas sax dañ ko war a dindi sax ci ay institutions. ndagam réew moo xamante mhm. dañu amoon un régime ay un président qui a pris tous les pouvoirs et aujourd'hui il a fini de concentrer de prendre tous les pouvoirs. pour nekk jimboori. alors yow très rapidement xam naa da ngay ñëw ci l'affaire Iba ak l'affaire euh, Assane Diouf. nga daanele foofu. bu ma déggee ni Assane Diouf dañ ko refusé liberté provisoire. Mhm. Euh, et au même moment voilà et au même moment. te dafa feebar ñu accordé ko ñi nga xamante ni dañ leen euh, euh, doon cité ci couvre-feu bi la ba seen violation boobu sax mu joon indi benn bakkan bu ci das. je crois que boo xoolee rek en terme de gravité ñee ñi nga xamante ni ñoo violé couvre-feu. di doom ay doomu borom ñoo ñu tax na ba benn baqan das fa mhm. policier bu ànd ak ñoom ba tey dégg gu ma radiation am maa ngi koy xaar mais lii dafa doy waar daal nee na parce que ki nga xamante ni mooy Assane Diouf lu ñu koy toppee naa ngi gis ay outrage agent wak ay incitation à la haine ak ay kenn xamul chargé la koo xamante ni en ñu fay policier vingt mille francs mu yóbbu mu gën a doy waar ba dee xam nga loolu dafa nekk lu doy waar daal donc dafa dafa dafa nekk yoo xamante ni day tax ba nit ñi di am problème ak confiance ci justice bi mhm. justice bi nag bu ñu demee ba nit ñi di am yenn appréciation wala am yenn yenn euh, njort yi

ñu koy saaga. damay jox honorable député nga terminer joxe le mot de la fin laata may tëj ak euh, kii di jéegi honorable ñu ngi lay nuyu le mot de la fin. bon man <laughs> ah. c'est mon anniversaire comprenez-le. <laughs> c'est son anniversaire. la ko permettre nga def lu la neex. <laughs> Euh, sama mot de la fin mooy. Euh, di leen sant. Mhm. di leen gërëm xam nga man nag. Mhm. man munu ma munu ma remercier sénégalais yi nee na Aïcha. Mhm. parce que foofu laay commencé foofu laay tëjee sax. ndax euh, sénégalais yi euh, man maa ngi jóge ci dëkk bu ñuy wax Italie. cari italiani italiani vi saluti vi saluto tutti léegi xaw naa. xaw naa fàtte italien bi tuuti nag parce que def am ma wax keroog ni ma yow dootoo wax italien ma ni ko man dama dama dama olofalisé léegi hmm. wante may may may nuyu sama sama sama sama mbokk italien yi mm-hmm. ah, eh, di leen eh, augurare un nuovo anno un anno nuovo strepitoso di di nuyu eh, waa Milano yëpp yëpp yëpp yëpp waa Italie yëpp yëpp yëpp yëpp may nuyu suma fédération bi mbokk fédération PDS itali di nuyu bu baax a baax a baax nag kilifa diine yi comme ni ko waxee ak kilifa aada yi di nuyu Serigne mun Al Bachir yàlla na fi yàgg lool te wér Cheikh Mouhamadou euh, Seydi mu abu Aboubacar Sy euh, sëñ mën mu sëñ sëñ Babacar Sy yàlla na si yàlla fi yàgg loolu te wér di nuyu Baye Laye Seydi yàlla fi yàgg lool te di nuyu Maam Baye Niass di nuyu benn benn benn ku ma xam ñu koy wax MC di caatu Baye Niass mhm. moom aussi ma kaa nuyu di nuyu koo xam ni saa su nekkee këram dafa xeex mhm. ndax man muy Ndella Babacar Ngom mhm. Euh, di nuyu bu baax le président Doudou Wade mhm. di ka sargal mhm. euh, di nuyu le président Ablaye Wade di ka ñaanal gudd fan ak wér euh, di nuyu ñëpp. d'accord di wax ni man Sénégal mënu leen fay. Mhm. yàlla na ma leen yàlla fayal. di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp nag. sama doom Jéegi Diop. maa ngi koy nuyu. Euh, xam naa ni plateau bi tey wax na xat. d'accord euh, ci moom. très bien Aïcha di la souhaiter bonne et heureuse année. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér comme nu ma ko defee woon. merci di wax président Macky Sall. foofu. honorable man duma la jiñ sàcc. Ablaye Wade moo la ne. les huit milliards de Taïwan moom mayu la ko. fu mu dugg mu dugg man duma la jiñ sàcc de. <laughs> dama ne su six milliards nangam réeree te yow yaay le patron. mënu la ko laaj d'accord mais man waxuma ne yow da nga jël ñi la ko nettali nag ñooñu nañu la wax li ñu la wax ci bis boobu ci mesure boo jël mhm. ci bis boobu wala la veille la ñu ca wax nañu la ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah alors jéegi c'est un honneur de pouvoir fermer merci beaucoup et dama kontaan trop balaa may wax li ma bëgg a wax sax balaa le mot de la fin je vais parler d'abord de la gestion d'un état comme mhm. ñëpp si loolu la ñu tëjee mhm. du ñëpp ñooy jiite balaa ngay jiite yàlla mooy jël ci qualificatif am jox la ko. comme li ma doon wax rek la destin la destinée ak fi nga war a jaar ak li nga war a am. yàlla noppi na yàgg na te kam ko décider bu booy bu lay neex dafay diriger bu lay naqar dafay diriger booy xaru dafay diriger te dafay àgg fu mu jëm ak fa ko yàlla yemale. et tout le monde n'a pas les mêmes informations li ministre de l'intérieur xam. Mm-hmm. li ministre des armées xam. li président xam man jéeg li taamam jaara xam sax en tant que député man xaw ma ko keneen xamu ko <laughs> ku ci nekk da ngay dem ci sa intime conviction ci selon information bi nga am pour nga mën a def mën a jël une décision le consensus et le dialogue kenn mënu ko reprocher sama président nee nañ du ree nee nañ du xaaxataay waaye bu jël décision mu woote gagné na ci si loo xamante ni score bu musul am dans l'histoire de ce pays teewul dafa ne kaay leen ñu ànd kaay leen ñu defandoo kaay leen ñu dugandoo suñu loxo woo ku nekk nag wax ak ku mu war a waxal donc kenn du ko reprocher consensus ni dialogue le pouvoir judiciaire. wax nañu léegi par rapport ak Assane Diouf keroog bi may def émission bu mujj bi dañoo lancer un appel. ni nañ ko bàyyi damay lancé waat un appel ni nañ ko bàyyi xam nga lu tax mm-hmm. sama noon sax yéenewu moo ko lu bon waxatuma ko xam du sama noon sénégalais la comme na man mm-hmm. waaye je fais confiance à la justice de mon pays le juge a le droit de prendre une décision par rapport à son intime conviction en se basant sur les textes est-ce qu'on peut reprocher ça à un juge alors que y a des chroniqueurs ku ci nekk tu te de faire un jugement terminez par là s'il vous plaît. l'engagement des femmes. loolu moo tax ma kontaan tey toog fii. ma lay delloo njukkal en tant que jigéen. en tant que jeune. nga taxaw ni nga war a taxawee. loolooy tax ma jox cër taamaam jaara ndax dama ni ak lu ñu bokk ak fu ñu bokk ak lu ñu mën a yëngal li ñu boole moo gën a dijj moo gën a mag li ñu séparé. Mhm. li ñu boole mooy le Sénégal et l' avancement des Sénégalais. c'est important donc képp kuy jigéen ci li nga nekk dama ne na nga téye ba mu dëgër. Mhm. parti ba nga nekk bu ñu la fa joxul cër yàlla lay jox cër ndax boo xeexee ak li ngay xeex nga gëm ko. Mhm. yàlla daf lay fekk ci loolu. Tamaam Jaar nag dafa làkk italien man nag du ma italien waaye pël laa mën naa wax kale bio kale bio mbii mee mbii maami min dendi leñol mbede salmin ma jaaraama. justement euh, bu mayoon nga ma nga ma ma tëj mais dama fat dama bëggoon wax benn affaire rek xam nga man dama dëkk dëkk boo xamante ne muy ginnaaw raay noor. di mhm. sama dëkk. Mhm. ma may vrai pikinoise man. am sang pikinoise mais am sang wu ba yéesaar pire ginnaaw raay di ziaraat waa ginnaaw raay di wax ni mhm. dañu ma pare ne benn set setal nee na Aïcha mhm. indil ma caméra yi ci sama set setal bi dimanche <laughs> dañ ñëw incha allah nee na Aïcha ASC Manko ñëw bi loi bi rek dama bëgg wax rek benn ASC ah. Manko dañuy set setal waaw tamam jaar ASC Manko dañuy set setal nee na Aïcha ñëwal la indil caméra yi amul problème nee na Aïcha pour une dernière fois dañu def loi bi pour détacher ko état de gens ak état de siège pour en cas de catastrophe qu'on puisse prendre des décisions qui n'empêchent en rien le fonctionnement du service public. merci remercier d'avoir répondu à notre invitation